Wally kii lay woyee bakkan may jibi sey dooraa mi fii sa laa kay ñëpp xam na allahu akbar dooraa la mi fii sa laa Wally mi ngi woyee si doo yow loolu marque fond la wala marque la waaye dooraa si sa laa waaye xam naa ko kooku ay rythme son la Wally mi ngi woyee si doo Pape Diouf mi ngi si laa eh! waaye Pape Diouf si laal waaye déglu si gëriga riga riga loolu ñu ngi si dóor si gëriga nga naan fa ñooy wax leen si waale ci li ci loolu booy wax li ci gis nga ni ngay aja sa nof sa nof kuy saraxandu astafurlah xam nga di sos ma xam ne yow leeral na yow li ngay wax xamu xam nga di amul. mais Wally Seck euh, mu xam nga euh, ah. Wally Seck ci mu ne. ay Wally Seck bàyyi nga nu tamit yow it de. yow xam nga ni Touré di Sénégal yi nanu xam loolu wuy ba Wally tu te rappelles. waaye yow yaa nu mën a bàyyee nii. ay waay fàttali ko yow waa ndeysaan taay daa ak kii. penc ma waaw ndeysaan mu téye micro bi ndeysaan. waaw boobu waale ndeysaan boobu waale yi nekk. yow waale yow ñun dañ laa xam. Ah, tey lan lay weer. tey lan lay weer ba nga xam loolu weer waalu set. di bi say ndeysaan ndeysaan. waaye ñu jox ko micro mu naan ndeysaan tamit. waaw ah, ndeysaan ko weer rek. ay weer rek waale ñun ñoo ko doon encouragé. non di ko encouragé. ñun ñoo ko doon gëmal ni que. bi jaay. non waaye téye micro bi temps yi danaa imité papa ji rek. waaw waaw waaw. Coro eh, di woyu jàmbur. yow répété woon waay lan nga si xam. waay doon woy kii. xaar nga am kuy woote. téléphone baa ngi sonné. jëlal Coro Baye Samb nga jël woyu ñu ngi lay jéggul. Coro Baye kooku papa yi moom moo jeex waay ka. yow. teel ma nii waay allo. waaw. allo 12. oui allo man la Waly Faramaren bi. ndeysaan. suñu waa ji la waa ji la. waaw sek sek sek. sek sek na ngeen def. jaajëf aay baax nga def. waaw sek si ngalam la si jaw ma jaw xor fari jaw ma jaw xor ma jaw xor fari jaw. barka yonent bi wallaay Faramaren bu mag bi. barka yonent bi bismillah ci allo 12. dëgg la dëgg fi batterie ak clavier rek ak. ak ak rek nga toog di seetaan. wallaay wallaay teg ba mu baax. ma ne. waaw. Euh, sànq ba léegi maa leen déglu. Mm-hmm. ngeen di wax Assane Ba Pape Diouf jàppal Waly bàyyil Pape Diouf c'est que bi man la quoi man la. ah affaire bi bi man la yëpp man la rek. yow la c'est waaw non cest à euh, man maa xoromu daal. Waly est-ce laaj mais dama laaj benn affaire. waa ñëwal. fi dem Bercy. après Youssou Ndour yow yow yow yow après après Youssou Ndour yow yaa mais mais ku feesal Bercy après Youssou Ndour mais attends mais Pape non non non dama lay laaj rek dama lay laaj non dañ déggoon il paraît que ni dafa am benn moment boo xam ne dañu ubbi woon porte yi de ah non wuy ma mhm. euh, fans yi ñooy wax euh, mais maa Pape Diouf amuñu benn problème mais Pape Diouf xam na ni nag bu caaxaan jeexee dëgg des nag Wally du Pape Diouf mais loolu kenn waxatu ko moo tax ñu naan waa lii tax ñu naan léegi dama leen di mais wax lu concret loo xamante ni mooy tax Sénégalais yëpp d'accord ni yow la Wally est-ce que da nga mës a am disque door wala disque platine wala benn raaye boo xamante ni am nga ko ci musique waaye dama ne la man lu ma am moo gën disque platine xaw ma disque d'or kër nga am moom yow euh, man yàlla moom ma def si xolu doomu aadama yi xol moo gën disque <laughs> disque mooy lan xol moo bon léegi dama lay paas sama papa ndax mës am raay benn raay léegi bàyyi bàyyi ma paas sama papa bàyyi ma paas sama papa Pape Diouf tamit toj na Sénégal toj na Sénégal xam léegi bàyyi ma bàyyi mu wax ak yow gën a dee sa papa ban moo ngi nii 70 son taxaw de loolu muy ma nanu xaar wala nañ kon alors 12 exclusivité ñu ngi leen koy wax Thione Seck da leen koy nëbb génne na 70 son exclusivité fii ci Allô 12 lépp lu waay di nëbb ci show bi alors partage la vidéo yi gars yi partage la vidéo yi. waaw man la Thione. papa Thione. waaw. papa Thione ñu ngi lay déggee. dama ni dama bi wax na dëgg. Ah. mais bàyyi leen sama doom ji. ah lu nga def leen sama doom ji. waaw mais lan lan ko def jàppal waaw nga mais c'est le meilleur. Mhm. waaye c'est le meilleur c'est le meilleur. mais ce que xam nga ni Thione yow yaa daan way naan ku ràcc jëmale sa kanam mu daal di dëll. waaw moo tax nag ma ne la sëlëmaya waaw dama lay laaj ndax Pape Diouf tey jii li yàlla dogal tey jii ni mu dogalee Wally Seck nekk sa doom ndax dogalul itamit euh, Pape Diouf doon sa doom Pape Diouf sama doom la waaw ndax yow nekkoo nekkoo koo xamante ne tey jii da ngay bàyyi deret di daal di yemale ñëpp ndax itamit nag seen bàyyi nga ci musique man ñëpp laa yemale ñëpp daal ñëpp yemale mhm. mais nag euh, dafa am loo xam ne nag euh, mhm. faramareel na rek ah Faramaren c'est Faramaren. ok mm, waaw Faramaren c'est Faramaren. Euh, yow sa problème bi maanaam ñëpp xam nañ ni lu flagrant la sa diggante ak Youssou Ndour tax ka demee noonu ba tax na eh, képp ku tax ci Youssou Ndour. ah amul benn problème bul ma tuddal kooku. Ah, euh, je suis désolé. Euh, je suis désolé bul ma tuddal kooku. affaire Pape Pape Diouf la ñuy wax ak Wally Seck wuy ma. affaire Wally Seck la ñuy wax ak Pape Diouf bul ma dugal ci ay Youssou Ndour xaw mais la moo tax nga bañ Pape Diouf. non bañu ma ko sama doom la. wax naa la nee naa la sama doom la. ok booy yi yéen sax euh, dangeen ngeen xaw a kon quoi. maa ngi maa ah, ah, ah, ngi na de mais eh, coupé na yàgg na mer na. Pape leer wala bëggul ku koy kii. laaj ci question Pape Thion waxuñu xam naa dara daal sëy. ngi tëj émission bi ah ñi ngi tëj émission bi jërëjëf mais damay wax ni Wally Seck mm-hmm. nit ku baax la. Mm-hmm. ba Pape Diouf tamit. waaw nit ku baax la. dëgg la nit ku yaru la. Diouf nit ku gëm liggéeyam la. wax dëgg na Sénégal dama leen di ñaan. Mm-hmm. ngeen bàyyi nit ñi ngeen di séddale. billaahi. Sénégal jéem ngeen ko xar ba sonn mënu leen ko xar ngeen def ko bëgg ko def individuel individuel bàyyi leen nit ñi ngeen di tappartaataat changé par lan pour lan ban chance na am. Wally day concert muy toj Pape Diouf di concert muy toj. te ña demoon ña demoon ca Wally. ñooy dem ca Pape Diouf Pape Diouf ba pare nag bëgg diggante ñaari ku ne di duul astafurlah al azim geen baal ma ci kàddu yi sama xol a tàng ku ne di sos loo xamante ni amul Sénégalais yi ànd leen ak seen sago te xam ni da di dee yàlla àtte leen fa innamaa al usri yusran innamaa al usri yusran fa izaa faragta fansab wa ka rabbika farghab Touré tëjal. musique nga jaxaseeg yàlla yonent bi. mais allah fi kulli makaan. waaw baax na man daal xam naa si dara li am solo daal laay wax moo di ah kon ñu ngi tëje foofu émission bi kon nag yéen tëj leen. xam ngeen ni love dafa nice la wax ak moom télé sénégal point com get leen kon attendez waaw